xam nga ñun murit dañu gëm sëñ Touba at mu jot ñu di ko sant di sant nag sëriñ Mbacke Dabassar mi nga xam ne moo ñu boole ci Serigne Touba li ci am solo nag mooy ñun ñi sant ay homme politique lañ dañuy def politique te nit ki lépp lu muy def day yore couleur bu mel noonu fu jëm loolu lay yóbbaale moo tax bi ñu cantee waxaale nañ ci ndax temporel ak spirituel ñooy ànd diine ak jamono. te jamono ji ñun dañu gëm ne dañoo bokk ci ñi ko war a doxal te bi ñu yàlla nattoo ñuy def politique tamit président Macky Sall la booleel ci nattu ñuy ànd ak moom ndax ànd sago nekku ci waaye ñu gis ne ñun fii ñu féetee di ci bay suñu waar muy dans le département de Mbacké rawatina commune bu Touba dañu am ay jafe-jafe depuis président accédé au pouvoir ñu gis ne am nañ ci responsabilité ñun ñun responsable yi nekk ci commune bu Touba. ndax nous ñu ligi, liggéey APR wala Benno un Touba defuñu ko suñu leader yu mag yi fi un intérêt personnel ba indi fi jafe-jafe mais nous gëm na le président Macky Sall am na responsabilité responsabilité politique parti au pouvoir Nous dafay am dañuy ndax la.

donte dañoo naqarik ayit dañoo bokk ci sey bi dañoo war di ayé kon président Macky Sall ñing koy lancer un appel un appel solennel pour xamal ko neko commune bu Touba dafa am solo ci électorat bu Sénégal kenn duko ko té ñun mom lañu andal su daano dañuy am gatché su daano dañuy daanu and ak mom té bëggu ñu mu daanu parce que bëgg nañ mu agalé ay projet yi nga xamné mom la nal muy PSE bi ak lako accompagner lépp ndax président bu am vision la waaye nag pour ñu mën cee dugal suñu loxo foog mu jàpp ñu foog mu jàppale ñu ndax bi mu fi ñëwee màggal nee na seen bopp yi mi ngi nuur ci ndox mi mais moom kay nañu jox loxo génne ñu. waaw loolu la ñuy xaar ci moom. ndax mën nañoo génne bu ñu bëggee génne ñu génne ñun nag la ñu waxoon duñ ci jóg moom la ñu di ko jàppale bëgg nañ mu am deuxième mandat waaye nag ñu ngi koy xaar ci mu ñëw jàppale ñu dimbale ñu dimbale responsable politique yi fi nekk. que ne ñu mën a wax nit ñi ndax politique dafa metti te Touba demande sociale bi dafa bari ndax Touba dafa nekk dëkk boo xam ne amul usine xale yi alxuraan la ñuy jàng suñu paree amuñu métier amuñu centre de formation de métier amuñu aussi tamit foo xam ne artisanat yi bu ñu liggéeyee li ñuy liggéey ba nag mën ko faa jaay muy village d'artisanat boo xam ne dañ ko fa yóbbu yooyu yëpp ñu ngi ciy xaar président pour ñu jàppale ñu ci.